waa kay oustaz ku dem di ziyaare ay bàmmeel gan lay wax boo yeggee danga naan assalaamu aleykum ahla diyaari min almuminina wal muslimin wa inna inshaa allahu bikum laaxiquun asalullaha lana wa lakumul aafiya ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi dëkk te nekk ay jullit ñun de inshaa allahu léegi ñu ñëw wala danañu ñëw ñoo ngi ñaan yàlla defal ñu ñun ak yéen aafiya boo yeggee nag dangay ñaan sa borom ñaanal leen ñoom mais ñoom doo leen ñaan bu fekkee ñu baax lañu mën nga fa ñaan sa boroom mais du ñoom ngay ñaan ku xas wàcc dootoo ko ñaan bi mu fi nekkee sax nga daan ñaan yàlla jaar ko ci moom pour mu ñaanal la yàlla waaye moom ci boppam du mooy maye moom boo ko ñaanee moom yàlla lay ñaan kon ñaan yàlla lañ koy def dégg